localité avait demandé autre chose dans d'autres domaines, comme c'est le cas de Guénara Sud qui a demandé une école, un stade, ainsi de suite, ainsi Parce que nous, on a demandé ça parce que Guénara Nord a manqué. Donc, euh, nous sommes vraiment peut-être à terme. Euh, ils vont bientôt procéder à la réception technique dans, euh, au courant de ce mois d'octobre. Au mois de novembre, ce sera la réception provisoire. Nous avons pris les devants pour être en phase, pour ne pas être en retard. Euh, on a pris euh, euh, le, devant, on a soumis ça au conseil municipal par rapport aux taxes, par rapport à d'autres choses. toutes les démarches qu'on a eu à faire, vraiment, c'est les démarches que j'ai eu à mettre au parfum de la délégation d'Apix, ça fait tout juste une semaine. C'est à partir de ces réunions qu'on a jugé utile de, tenir cette, cette visite d'essence, qui n'est pas une visite de courtoisie ou de visite de proximité, mais c'est une visite d'essence, visite technique qui doit nous permettre d'avoir une idée des différentes charges que ce bâtiment aura besoin dans le mois, dans l'année. Euh, nous allons concrétiser cela demain à 10h euh, avec l'ensemble des équipes qui ont eu à participer vraiment dans cette visite d'essence. Je crois que voilà les raisons pour lesquelles vraiment on a convié tout le monde, vous en tant que presse, le commissariat, d'autres partenaires la sécurité vraiment qui pourront apporter leur plus vraiment pour que demain qu'on ait une meilleure gestion de cet équipement marchand. Comme je viens de vous dire, hein, ce mois d'octobre, il y aura la réception technique. Le mois de novembre, ce sera la réception provisoire. Euh, la dernière réunion que j'avais avec eux, euh, il, était aussi question au niveau de APIX de rédiger une lettre d'invitation du ministère en charge pour vraiment qui se prépare à venir inaugurer vraiment cet équipement. Ce qui veut dire que vraiment c'est un bâtiment qui est, qui est, fin, qui est fait, presque fin prêt. Oh ça, je, je ne me connais pas. C'est bon. on le saura demain. Voilà. di leen sant yéen ñi ñëpp fi ñëw pour ñu waxtaanee lii nga xam ne moom état du Sénégal à partir de la banque avec la banque mondiale l'IDA l'IDEA qui a presque le plus euh, moom nga xam ni moom moo gën a financé euh, équipement bi donc euh, bërki démb dama daje woon ak waa APIX ñu waxtaan waxtaan bi ñoom li ñu bëgg mooy naa xam bâtiment bi lan moo ñu ci war yan charge ci wàllu set ba ci wàllu aar ba ak yeneen yeneen yoo xam ni vraiment war na batiment bi pour que ëllëg batiment bi du dem ba un an deux ans ñu ne acca cim loolu motax tax ñun ñu jóg jël nañ disposition yépp ak conseil municipal bi pour que tay ji ñu ñëw fii boole ko vraiment euh, commission yu bëri yoo xam ne installé nañ ko en collaboration ak waa marché Waranka ak ñeneen ak ñeneen pour que ñu am idée bu baax boo xam ni ëllëg dinañ mën a jariñ pour que marché bi ñu yore ko yore bu bu bu am solo donc euh, loolu daal moo taxoon tey ñu ñëw fi mais bi ngeen ñëwee boo gisee visite bi tey war ngeen xam ni avancé na avancé na parce que nee naa leen ci mois d' octobre bu soobee yàlla dina am équipe technique buy jóge APEX ànd ak mission de contrôle bi ñëw xool lii ndax avancé na wala avancé wul bu dee am na loo xam ne lañ ci war a yokk ci lañ leen di mayaat délai 15 jours mbaa 20 jours na leen na ngeen ko jeexal pour que bu boobaa bu ñu ñëwaat nag dootu nekk réception technique waaye réception nëgënuwaay maanaam provisoire en attendant que vraiment que li am solo war a am nee na woon naa leen ni euh, mënuma leen a xaar ba ngeen pare may doog a def mais damay ànd ak yéen. pour que au moins marché bi ci 2018 budget bi ñu war a def marché bi ñu mën ko jël en compte marché bi la gare routière bi la centre commerce centre polyvalent bële la je crois que yooyu yëpp tey euh, jot na ci l'occasion ñu sant yàlla sant état ak partenaires yi nga xam ne ñoom ñëpp vraiment ñoo ci jàpp ak tey ñi nga xam ne ñoom laa invité pour que bu subaa ñu gën a am xam-xam ci lii naka lañ ko mën a yoree. mooy li la wax rek comme dinañ ko dinañ ko xayma. xayma ci wàllu xarala ci weeru octobre c'est pour que bu ñu ko xayma xool ni kat fii kat des na lu manqué ñu ne leen ma defar leen ko fii quinze 15 jours wala fekk des na leneen ñu ne leen defar leen ko fii ak 15 jours mooy ñuy permettre bu ñu yegsee ci mois de novembre vraiment ñu réceptionné ko provisoirement daje bi ma daje woon ak ñoom barki démb ñu ngi doon bind ñu ngi doon envisagé woon bind ministère bi nga xam ne moo yore lii wala directeur bi ñu xool naka la ñu mën a def nu ma gën a gaawee ñu ñëw réceptionné ko. pour que vraiment loolu donc comme ñu ngi ci kàddu yooyu cela veut dire que daanaka li sotti na ba pare ay détails daal moo ci des waa suba ma xam ci daal kayit waa jëm ko waa APIX parce que loolu lañ soxla ci ñoom parce que xam naa dañ bëgg xam réellement la capacité financière de ji ci batiment bi lan la mën a jël ci charge lan la lañ ñu mën a jural ndax li mu mën a jël ci charge ak li mu mën a jural war na mën a sotti war nañu mën a jariñ loolu moo taxoon tey ñu daje fii ngeen xam bu subaa ñu gën cee waxtaan.